waaw jërëjëf man maa ngi tudd Ndiaga Cissé maa ngi nekk si réseau national CLPA yi man maa nekk point focal géolocalisation pétrole ak gaz ah. ñu ngi ñëw tey fii Mbour ci poursuite mission boo xam ne ñu ngi ko commencé depuis barki démb ñu ngi ko defee Saint-Louis ñu dem Kayar tey ñu ngi Mbour après dañuy jàll si yeneen site yu mag yi mission bi nag li ko waral dañuy indi benn balise boo xam ne dañ leen koy présenté comme niñ fi ñëwee woon indi yeneen balise waaw balise bi dafay permettre 5 minutes yu nekk dañ lay tracé ñu joxe sa position li nga xamante ne day yombal ëllëg si biir su fekkee am nga ndog wala nga bëgg nit ñi ñëw jël si la am nga problème du ñu seet lu bari dañuy ñëw jubal fi nga nekk ñu mën la jël mën la indi. ci loolu ñu ci profité di remercier président de la république parce que xam ngeen ne réunion conseil des ministres bi passé rek dégg ngeen ko mu wax ministre que subvention moteur yi na ko gaawal mu àggali ko beneen bi mooy mu fexe ba nga xamante ni jàmm mu law ci askanu napp gi. yëngu bi nga xam ni moo fi am ci fan yi ñu dalal ko ba nga xam ni ñun ñëpp dinañu liggéey si jàmm loolu ñu ko ciy sant di sant ministre tamit. parce que initiative bi mom la mom mo yor département moy suñu ministre de tutelle mu ngi def ay efforts yu bari mom aussi mu concrétiser l'ol ni mom réer yi ñu koy wax ak nit ñàkk na ba kanam si dafa bëgg mu jeex fiñ ñu toll ci technologie gal yëpp war nañu am appareil bi nga xamné muy wax heure bo amé soxla ci kaw jor nga mëna fexé ni amna jafé jafé ñu mëna la jël si léegi daadaar kon l'ol dañ koy santé euh, ministre bi parce que ci ci ci coobareem mo tax mu engagé wu pour lo gal yi ci loolu benen bi mission bi am ku ko yombal muy CAP muy organisation bo xamné ay acteurs de la pêche lañ ñu nekk ci napp gu mag bi mënoon fa yem ñu gis ni napp gu ndaw gi am na soxla ñu ñëw ne dañ koy accompagner te duñ ci yem lépp loo xam ne mën nañ ko te xam ni njëriñu napp gu ndaw gi la te ministre bi soxla ko dinañ ci ànd ak moom pour pour yombar lool léegi bi ñu ñëw aussi ñu fekk administration local ñooñu aussi ñu leen sant baax parce que bu ñu ñëwee ñoom ñoo ñu jàppale réunion yi ñu def yëpp ñoom ñoo ko présider te bu leen ñu màcc nag ñoo ñoo ko présider ñoo ñu ko faciliter kon ñoom dañ leen di sant bu nga xam ne baax na bu baax a baax a baax bi mooy acteurs gis nga nit ñi ñëwee en masse bu njëkk ba soo wootee ak réunion président Adama wax na ko acteurs yi sawaru ñoon pour ñëw léegi looleen leen woo dañuy ñëw déglu wax si seen xalaat kenn mënatu leen nax seen yëfi bopp ñoo ko jëlal seen bopp ñoom ñoo koy waxal seen bopp kon loolu aussi dañ leen si dañ leen di sant bu baax a baax a baax beneen bi may mujj aussi mooy sant journalistes yi parce que boo ñëwee Mbour dañuy wax ni journalistes yi bëri bëri bëri bëri dañuy wax ni mbuur li fa am amul fen parce que boo leen woowee ñoom dañuy ñëw ensuite li nga bëgg ñu jàlle leen la ko dañ koy jàlle kon loolu ñun en tant que Mbourois on est di am journaliste yoo xam te ni heure bu ñu événement xeebuñu ñu duñ leen jox dara mais ñu ñëw couvrir ñu génneel ñu ko kon loolu aussi je tenais à le di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. waaw xam nga balise yi njëkkoon a ñëw état bi jëndoon ko rek yooyu cent quarante dafa jënd quarante mais loolu phase test la woon mais si suñu waxtaan ak concessionnaire yi nga xam ne ñoo fi nekk du benn mot na juróom yu fi nekk ñoom dañ ñu wax ni tey bu état bi validé ba wax ñan ñoo am droit pour doter ñoom na si ñoo xam ne mun nañ def mille par bu ñu defee 1000 par an bu dee ñaar wala ñett ñooy liggéey loolu da nekk 3000 kon d'ici 5 ans wala 3 ans dinañ mën a am le maximum possible parce que parc bi ñu ngi koy xayma ne ñaar fukki junni la wala wala wala wala ñaar fukki junni ak juróom waaye Mbour boo ko xaajee ñeenti xaaj benn bi moom si département Mbour la nekk kon ñun am nañ ci wàll wu rëy parce que système bi ñu teg mooy xam ngeen ni matériel de pêche yëpp état daf koy subventionné bu dee ci napp la jëm rek daf ko exonéré je tax dañoo jàpp ni mool bi suis ko ko may gratuite mais moyen na dinañ teg benn système boo xam ne am bu mool bi di génne mooy tax mu jot si te di comme dinañ fexe it ba mu ba du seer ba nga je ne ku si nekk di nga ko mën a jot parce que ministre li mu ci soxla mooy mu tasaare si gaal yi bu ko ñuy amee ñeneen ñi amu suis le problème reste entier mais dinañ koy yombal ba nga xam ni ñëpp dinañ ci mën jot mais nag kenn mayewu je néanmoins mool bi dina génne dara pour mën ko mën ko jot waaw balise moom mënu laa wal waa dalay wane dalay wane a jafe-jafe nga am loolu la balise bi di wane si si si si maanaam kon xam nañ ne ñun suñu askan ñu ci bëri jànguñu ñun ñu waxtaan suñu biir wax leen ne na ngeen ko dessin ay mandarga dessin yoo xam ni ba dessin bu nekk day wax soo paanee essence day wax soo paanee moteur day wax soo amee ko feebar day wax boo këppoo it xam ne da nga bëgg wala bu gaaw a gaaw a gaaw day wax te détresse bi ni ñu amee dañuy am position gaal yi la wër yëpp muy bateau yi la wër kon japp na ni eh, eh, mbir mi yalla mu bu soté yalla mën def sutura yenn yu bari wañe wa bu nexé yalla loolu lañ bëgg daggal ko wala bañu wañi ko le maximum possible jéxal ko wala wañi ko le maximum possible wala man damay nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu euh, suñu daje bi parce que tey jii euh, en tant que président quai de pêche du Mbour en tant que président du réseau de quais de pêche suñu indilee ben équipement bu nga xamante ne tay ji dafa mucc ayib ci sécurité en mer te ku nekk xam ne sécurité en mer amul njëkk kon ñun dañuy tàccu parce que tamit tey jii jot na pour que tey rek ñu ne gaal dem ne géej kenn gisatu ko loolu war na jeex équipement bi nag am na alarme yëpp comme ni ko ki ma jiitu waxee de ce fait que euh, am na ñu fi jot jaar yëpp xool nañ leen mais gis bii gis nañ ne lépp lu ñu soxla am nañ ko ci kon vraiment dañ koy rafetlu tey jii nag lu may wax mooy ñun euh, pêcheur ñun acteur de la pêche muy quai de pêche Sénégal yëpp man lu may wax rek mooy ñu fexe ba eh, équipement bi ñun ñëpp ñu fexe ba mool am ko mais il faut que état dugal ci loxoom parce que tamit c'est des équipements qui coûtent un peu cher mais n'empêche que eh, ba kenn amul njëg kon eh, ak lu jar quand même état na ci dugal loxoom parce que ku nekk xam na ne mool yi amuñu doole mais n'empêche que dañuy rafetlu aussi ay directives président de la république Ndiaga wax na ko.

événement bu ñu am muy naxar muy banex ñom ils sont présents pour tassaré li nga xamanteni ni moo xew loolu nag ñun dañ koy rafetlu dem nañ ay dëkk mais nak présence bi des journalistes yi def fii mais gisuñu ko ah. kon tamit wax deug yalla bo gisé nen da nga nan nen a hmm. kon ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal jërë ngeen waaw c'est-à-dire euh, il faut reconnaître une chose dañu nekk secteur bu nga xamanteni secteur bu compliqué la euh compliqué comme quoi mooy tey euh, man Adama Sall en tant que président quai de pêche Mbour ministre de la pêche tey bu jógoon ne dafay ñëw Mbour man euh, li gën a rafet moon mu accueillir ko ñëw déglu ko mu wax ma xam li mu wax lan la bu dee lu mu ñuy jëriñ la ñu nangu ko bu dee lu ñuy jëriñ dudu ñu jëriñ la bit ñu nit mën nañoo toogit woote comme nii journaliste yi def suñu point de presse wax lu ñu na xari mais man mënuma ma rafetlu

suñuy doom suñuy sët ñoom ñu fekk fi dara